avec tout ce qu'on a connu jusqu'ici qui fait des performances économiques du Sénégal mësul am koo xam ne les ils sont combien cent nangam. cent combien les cent soixante cinq députés dañoo jug di ko tàccu ne ko ne ko vous êtes le maire mais man dama ko dégg ba rek ma ne man nekkuma ci réew mi sa Moustapha Bala je le connaissais pas mais waa ji nañ ko dénk Sénégal mu développé ko quoi. ah <laughs> <laughs> daanaka. ah quand je la presse sénégalaise tey euh, quand je la presse tey nañu dindi Macky Sall Amadou Ba et tout le reste Moustapha Ba nañ ko jox réew mu développé ko. il fera l'affaire waaw mooy mooy restitution bi moom la presse bi servir tey jii. mais euh, effectivement Moustapha pour parler un peu. je tiens à féliciter le site euh, Seneweb ça m'arrive rarement mais j'ai lu tey ils ont fait. Mame Birame c'est ça c'est Seneweb ils ont fait un papier tey c'est c'est secrétaire bi maanaam euh, Moustapha xam nga cette législature on avait dit qu'à un certain moment ça ce serait une législature de rupture hmm. mais malheureusement ci ci situation yi ñu xam euh, on a éliminé une liste titulaire de l'opposition mmh. et in li ñu gis ci assemblée bi mooy maanaam assemblée bi nga xam ne insulteur ak insulteuse publique yëpp nañu dajale dugal leen fa waaw installation bi nekk pëccëxoo débat yi euh, c'était pas un débat d'idées c'était plutôt débat euh, nga wax ñu saaga la jël euh, coquette sànni la ko wala jël mbuusu ndox ainsi de c'était ça en fait c'était ça le résumé du débat à l'Assemblée nationale mm-hmm. donc marathon bi ne ce marathon budgétaire ne pouvait pas déroger à la règle c'est-à-dire que donc on pouvait pas avoir un débat aussi élevé comme ni nga koy waxee mm-hmm. yi nga ne moom nañ doon gis ñi koy tegtale wala reporters yi di daw di ko couvrir mm-hmm. alors bu ñu génnee ci loolu bu ñu gisee tey justement ce qui s'est passé durant ce marathon on nous sort aujourd'hui que euh, Amadou Mamadou Moustapha Ba mm le ministre des finances euh, daanaka euh, c'est c'est c'est c'est c'est vraiment euh, moom koy da nga koy lire rek ne Sénégal musul am ministre ministre bu mel nii quoi <laughs> bon alors heureusement que dans le traitement de la presse. Sénégal ma bureau la waxoon sax loo bind sax il faut quoi tey yëguñu ko. mbay peel <laughs> donc c'est ça alors boo ko xoolee euh, euh, Moustapha Ba c'est juste une continuité de Amadou Ba et de Abdoulaye Daouda Diallo mooy lan leb cest à amuñu benn technicité ci comptabilité publique bi nga xam ne mun nañ ko tegal sénégalais yi ne lii nañu liggéey liggéey ci en fond sur sur fond propre cest Sénégal lii la liggéey lii la am lii lañ ñuy indil nag mooy que leb nañu on nous fait confiance la signature du Sénégal est. oui est valable dëkk bu am pétrole am gaz bu ko ay sama genre bi doon jiite sax. Hmm. fu ñu dem dañ leen di jox fu ñu dem ñu lebal leen. donc loolu c'est pas une prouesse mais on nous a présenté ce monsieur comme vraiment un messie. Hmm. mais un messie bi nga xam ne soo ko xoolee année bii nga xam ne moom la ñuy génn. déjà mu nekkoon ministre fa commencé woon nekk ministre des finances ñu ne woon le président ne woon ça ça allait être une année sociale. Mm-hmm. Mm-hmm. mais Moustapha c'est la pire des années du du magistère de Macky Sall année bii c'est la pire des années cest année sociale bi dafa mel ni. que moo gën a metti moo gën a metti si nañu yokkee courant si la yëpp yokkoo si la mais c'est c'est c'est l'année où les Sénégalais ont le plus souffert justement la cherté de la vie affaire loyer. affaire dund affaire soble je crois yaa ngi koy fàttali keroog. Hmm. pour la première fois soble nekk à la une de journaux c'est-à-dire <laughs> soble nekk à la une de journaux sénégalais oignon donc c'est ce ministre là qu'on nous dit que vraiment il a réussi quelque chose qu'aucun ministre n'a réussi mais je suis désolé avant moom y' a eu des ministres yi nga xam ne Assane Seck euh, bi qui a fini là-bas euh, au front saoudien. Hmm. Euh, ñoom euh, Ousmane kii Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop oui. ñoom ñeneen Abdoulaye Diop qui a été ministre des Finances pendant pratiquement tout le règne de Wade. oui yi nga xam ne vraiment. su ñu waxee wala boo déggee seen tour tu sens que y avait quelque chose. ça am na lu yaay yaay Sakho sa Mamadou Sakho et Loum voilà ça mais tey jii bon. c'est vrai que Sakho et qui ont fait le plan d'ajustement structurel ba bi Ablaye Wade di jël nguur gi il disait que ni il a trouvé au Sénégal un pays très liquide, et loolu liggéeyu Sakho la ak Loum ak Loum oui donc mais man li ma ci gën a yéeme nag mooy euh, bon la presse c'est normal xam nga nag non c'est pas normal non affaire bon ma bàyyi la presse ne peut pas passer toute sa vie à du mbay peex quoi c'est pas normal oui, mais non quand je c'est normal c'est le ministre des finances oui non c'est le ministre des Finances et le ministre des Finances tout le monde sait que voilà il est il aime être copain il avec quasiment tous les groupes de presse <laughs> ba pare nag je sais pas si je me fais comprendre. Ah, j'ai tout compris bon ce pays est magique <laughs> mais en tout cas toujours li may li may clôturer daal Moustapha euh, on a assisté à un marathon budgétaire morose. li nga xam ne sénégalais yi mënuñ ci jàng dara sauf sauf une chose. Mhm. mooy que Moustapha Ba à l'image de Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo. Oui. grand lebkat la. Pa bala ñuy avancer ci contexte boobu am y a un journal euh, qui a écrit tey que ni le nom de Moustapha Ba est revenu dans dans un scandale financier je pense. voilà c'est Afrique inti confidentiel Afrique. oui moo ñëw il a fait cas d'un scandale financier. Mhm. Euh, de cent huit milliards cent huit millions d'euros à peu près ay soixante cinq soixante cinq soixante six milliards de français CFA. qu'est-ce qui s'est passé. Hmm, d'après le journal. waaw d'après Afrique euh, euh, Confidentiel Afrique qu'est-ce qui s'est passé. Hmm. dañu am un marché bi nga xam ne ministre de la santé def ko passé en procédure d'urgence entente gré à gré. oui ak une société bu tudd CDC. CDC euh, je sais pas quoi Afrique euh, bon j'ai oublié le nom. Mm-hmm. bon mhm. Afrique Conception Distribution AC AC AC ACD. Mm-hmm. Afrique Conception Distribution la société bi tudd. Mhm. société boobu la un contrat. de 66 505 milliards à peu près. Mhm. pour la construction. d'un hôpital à Bakel, mhm. renforcement de l'hôpital de Fatick mm -hmm. en matériel comme imagerie et, euh, et consorts pour yenn këpp alors quest que euh, Marie Khemesse donne comme au niveau euh, de la DCMP mu ne mm -hmm. puisque 2000 émeute mars 2021 ak émeute yi amoon juin 2023 il mhm. y a de blessés il fallait ñu tabax ay hôpitaux renforcer li nga xam ne moom mooy le plateau médicale mhm. mais kii dénoncé affaire bi dafa ne loolu Marie Khemesse soulevé comme prétexte pour ñu def une procédure d'urgence en temps direct. Mhm. loolu am mënul nekk parce que en deux mille vingt deux déjà y avait un programme qui avait été ficelé dans ce sens et puis li gën a yéeme. Mhm. la même société daaw daaw. Euh, Afrique du Afrique conception distribution bi daaw dafa ñëw proposer leen le même marché avec moins de trente millions d'euros par rapport ak bii moins de trente millions daaw bi mu ñëwee. Mhm. avec moins de trente millions d'euros dañ ko ko bañal. ok ren mu ñëw ay plus de trente millions d'euros ñu nangul ko ko muy benn ñaar ñu ne c'est une dame bi nga xam ne. Mhm. xamewuñu ko ci monde médical ci mbirum gànnaay affaire armement la doon yëngu. daam boobu daanaka. moo ci joué lu bëri bëri bëri avec ses contacts singapouriens. ba ñu jël contrat bi dugal ko jaarale ko par le canal d'une banque allemande. d'accord banque boobu nag justement ñoo ñëw toog ak le ministre Moustapha Ba ne ñoom daa ñu jël en charge. le financement de toute cette toute cette opération mooy maanaam de cent huit milliards d'euros mhm. on risque de se retrouver avec les intérêts nangam sangam dugg na fii génn fii mhm. à cent cinquante milliards millions d'euros yi nga xam ne gafa Sénégal ñoo ko war a fekk voici le scandale c'est la question de la souveraineté mais bien sûr le papier est à lire dans le confidentiel dans confidentiel Afrique d'accord alors dégg nga baax euh, Ndéné Mbodj li Pape expliqué mhm. ci notamment le budget bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu voté xam naa certainement comme beaucoup de de de sénégalais euh, budget bi da ngay dégg rek ñu naan chiffre nangam chiffre nangam chiffre nangam jusqu'à la fin nga gis tout la presse ne le ministre des finances est le meilleur d'entre nous alors boo booy jàngat ce budget là ak fi Sénégal toll ba ba lan nga ñu ci mën a wax waaw li li li ma bëggoon bëgguma woon euh, inter kii sax euh, continuer Sané mhm. mais mooy li ma doon wax léegi léegi rek ci ki bëgg a doon candidat ci pouvoir bi ki mhm. bëgg a continuer kii bi Euh, euh, continuité le candidat de la euh, continuité dama ne ñoom ñëpp ay ay ay Afrique dañ dañ ñoom ñëpp dañ war a wàcc ndax question de souveraineté bi ñuy perte si ñoom ak seen réseau yi lay jógee mhm. bref waaw c'est vrai mhm. suivre naa marathon budgétaire boobu et baax na baax na su nekkee ne ñoom ça ça permet à leur à leur à leur équipe de ñu ñu tàccu wala ñu reetaan